voilà mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jaajëfal képp koo xamante ni nii yaa ngi bàyyi xel jamono ji ci Xéewal TV euh, ñu ñëwati rek ci beneen émission bu nga xam ni daal mooy ziar ziar nag nekk lu nga xam ni saa su ne dañu ciy ànd ak euh, ay ndaanaan dañu ci ànd ak ay nit ñu yàlla baaxal euh, di ziaranteeg ñoom rek daal di ziar mbokku taalibe yeeg mbokku xarit yi nga xamante ni nii noonu bàyyi xel tey nag ñu dalal ci kàngam bu mag ñu dalal ci it koo xam ni ku. saf jamono la waye tamit ku xew ci jamono muy soxna Nogoy kilala euh, soxna Nogoy ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay fay ku baax la jox sa way bu baax a baax di bu baax a baax a baax ah woog ñu ci kër gi ngir ñëw teew fi waxtane lo xamni ni yalla genn yont bi genn sëñ Tuubaa ñu am ci sawarte lol nak di ñaan sëñ muntaha basir mu yag fi lol ta di ko ñaanal sax Cheikh Jëmb Fall di ko ñaanal mboolem kilifa diine yëpp ñu yàgg fi lool te ànd ak wér. jërëjëf ñu yàgg fi lool te ànd ak wér loolee yàlla na ko suñu borom def euh, ñun tamit ñu fekkee waaye soxna Nogoy dafa am carte d'identité maanaam dafa am loo xamante ni saa yu toogee. Euh, moom lay njëkkee bëgg ko lool ci xolam ba tax mu koy dundee muy xasida rawatina la mu cay def ci lu jëm ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine Euh, kon dañu lay bayyi nga nuyu soppe ak xarit yi ci ñu la xamé bu ko defee ñu dugg ci waxtaan billahi min seytaan rajim bismillahi rahman rahim wa sallallahu الظلمات دله الخلماء خلما والأولياء من لا يزال خوتي وهولها دله عبدتي فخر خزان الكرام ولتغاد عبدا خير مرام خسيدتي فخر خزان الكرام ولتغاد عبدا خير مرام هديتي مهجينة كل الموت كان مناصرا وعصاه ملك ما تواجه نصار الله لي بلا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbi rahamina ah adde Sëriñ Tuba amin ya rabbal alamin la ñaan am na solo macha allah tubarkàlla lii nii kenn du ni guleet ndax euh, xam nan ko ci soxna yi mu kilaa la euh, ndax day yaay faal boo xamante ni nii kenn lam-laameetu ko ci réew meeg biti réew euh, bari nag lool ay soppe macha allah tubarkàlla ndax li tax nit ñi naw ko mooy soxna yi dafa nekk yaay faal di nitu kese ba paré amuk talibé, ndaxte ñi mu Sekel, sékkal ci dara donc soxna nakoy ñu dalal la ci TV euh, mu nekk télé bo xamni ni euh, télé Serigne Touba la laa mëna wax euh, borom di ko lool Serigne Saliou Mbacké ngay yaay fal pire ñew fi ci kër gi aussi soxna lan lay yek invitation bobu waaw jërëjëf tay mom limay ngir bi ma bi ma tàbbisee ci daara ji rek jàkkaarloog ñu tedd ñi la sama xel dal ma rafet njort bu baax a baax ci émission bi wax dëgg yàlla euh, mu nekk lu am solo ndax tamit lu dul diine rek diine ko gën te it euh, wax dëgg yàlla li ngeen ma woo daal lu sedd sama xol la rawatina jàng xasida yi ak waxtaane sëriñ bi kon nag ñu leen ciy sant bu baax a baax di ziar bu baax borom kër gi di ko jox wàcc waayam ndeysaan jërëjëf euh, soxna Nogoy euh, tey jii dañoo bëggoon tuuti euh, mbokk yi ñuy seetaan ak ñu ñi fi ne nga wax ñu ci soxna Nogoy kan mooy soxna Nogoy soxna Nogoy mooy benn yaay faal boo xam ni murid la bu gëm Serigne Touba waaye soxna Nogoy tamit yaay faal la yaay faal la bu gëm maam Cheikh Ibrahima Fall juddu ci xasida ngir sunuy maam lan fekk ñu koy def Eh, juddu tamit ci zikrullah ngir sunu Imam lan fekk ñukoy def deug yàlla ñu nekk ci loolu te bañ ci nekké ba légui ñu ci gis xéewal ak yokkute bu baaxa baax ndax ku tedd ki amul tank ginaaw tank kanam rek la am eh, jërëjëf eh, soxna Nogay loolu am na solo lool mm. donc dañu lay ñaanal rek ci li nga nekk ak li nga bëgg yalla bayyi la ci yokkal la baat bi ba fo yu xo nit ñi di gëna a ci yow danaka mën nañu wax ne sax aduna yëpp ñu ngi lay bégee donc tey jii euh, bu nu waxee ci soxna Nogoy jëmmam ba nu wax mu mooy kan euh, léegi nag li ñuy bëgg xuus mooy ci milieu bi nga nekk mu doon millier boo xamante ni nii dafa bari fakkastal euh, sikkar si ku ne xam na ni mu mel yenn saa yi nga dem ci géew nit ñi di siisante micro yi loolu yàggee na ak sikkarkat ak communicateur traditionnel donc loolu yow ngay jigéen yenn saa yi ndax doo jànkoonteeg façon yi néewal doole waa jërëjëf laaj nga lañ bu am solo eh, eh, man na metti waye man na man na oyof ci ben côté eh, fi metté moy euh dafa am jankat bu mag bo xamni ni danoo daje bu yagul programme ñu dajé tay ji manam ma wara jang ci waxtu bobu mu exi ma jël sama cër jox ko bi may sante gërëm dafa jël rajo bi daan ni jërul sante ku mëno wallahi ku siis mënoo ku soxor mënoo waaye ku man doo siis doo soxor ndax da ngay jàpp ni waxtu buñ la joxee rek la nga war a wax di nga ko xam mu ngi noonu kon daanaka buñ duggee ci milieu yu mel noonu muy tànt yi nga xam ne moom la ñu bokk suñu yi man li leen di jàppee ñi nga xam ne maa leen féete mag rakk laa leen di jàppe wala ma jàppee ne ay doom ñoom nag mu nekk ñu nekk jëm yu baax di ay jànkat yu am yar am teggin fu ma dajee ñoom yaay rek lan may wax ñu mag ak ñu ndaw ñëpp yaay na ko lan may wax gorlo ngeen ko mën a jot ci anam yamu waree ndax saa su ne duñu ci jógee di leen jox lu leen di jariñ euh, soxna Nogay euh, li nga wax léegi am solo lool ndaxte nag euh, dañu ne ku siis mënoo loolu moom kàddu gu wér la ndax mag ñi dañu koy waxtaanee nga nekk woykat ba pare di liggéey ci média boobu di benn ñaareel ba mooy soxna Nogay ba tey kenn xamul ndax dafa mës teg album génnee ko mhm. walla ci ay single rek lay dox wa sonu no re teg na ay album teg na ay album yu bari wa def nako ngir bi ñu jang 97 ba léegi fina su ma album bu mujj bi mo nek juróom ben album wa dafa fekk ni nak euh ñu ci waroon a sonne ak ni ci ci taxawé euh non lañ ci taxawé wut ngir jamono ban ci dugg loo duggiwul dara dara fekk la ca. duggi woon ci dara euh, euh, ba tax na dara fekk ñu ci dara jëm ci fekk nag mooy album yi liñ ci def bari na waaye ñu ngi waajal loo xam ni xam naa ni buñ ko àndeek <laughs> waa kër gi xam naa ni dina gën a neex te boobaa dañ ko gën a dégg. ndeysaan euh, dañuy rek daal di jàll nag ci géewi géewi tarixa yi. Mhm. ndax comme li ñu ko gisee fii ci réew mi dafa am murit am mhm. tijaan am xaadir am laayeen ainsi de mhm. suite yéen ngeen nekk ay. Yaay Fall di ay tàggkatu Rasulullah tàggkatu Serigne Touba Mbacke Xaadimul Xadim di tàgg maam Cheikh Ibrahima Fall euh, tey soxna Nogoy supposons ñu ne ko tey jii dangay dem Yoof war a jàngi jàngu laayeen loolu dina du lay causé problème wala mu andil lay jafe-jafe waaw jërëjëf loolu du du metti du am jafe-jafe ndax ñun ñëpp benn lanu mm-hmm. euh, te tey ji lu mel ni tey festival salaam bi ak yéen mel ni moom suñ fa dajé tarikh yëpp a fay dajé te suñ fa dajé dañuy japp na serigne Sidil mukhtar mbacké waxon moy nañu and doon ben and googu ñu and doon ben te serigne bi santoon moko ñu nekk ci moy waral bu ñu wooyee yoof dinañ dinañ am lu nu wax donte du bari nak ndax loolu namp rek mom ngay toqante ko waaye tamit lo deglu deg ko ah def ko ci sa dënn yàlla mën naa dogal nga am lo ci for ngir buñ la bété na am lo mëna wax suñu demee yoof dinañ mëna wax dara kon boog gars yi barkeelu leen ci seen émission barkeelu comme ni ñu koy defee rek saa su ne euh, fii ci euh, xéewal TV euh, ak soxna Nogoy mi nga xam ni mu kilaa la tey jii moom la ñu fi am nee la lépp day am solo soxna Nogoy ndax ak moom yaakaar naa ni dinañu mën a progresser ci kanam. Mm-hmm. kon comme ni nga ko waxee rek nee nga juróom-ñaari album nga génneegu mooy mm-hmm. juróom-ñaareel bi mooy bu mujj bi. Mm-hmm. waaye tamit dañ lay gis ngay liggéey ci média. def ay émission yu mel ne ay émission yu mhm. yooyu di waxtaan mhm. ndax nekkoon waxtaankat waxtaan mhm. ngay woy wala la wala la lu mu dëgg ki bi moom fa yóbbu mooy jànkat boo gis rek mën naa wax yenn saa nag mën naa tëlee wax ngir su toogee ñu jox ko micro jàng rek lay bëgg a def ndax loolu lañ koy doyee waaye suñ ko woyee ci waxtaan dina mën a xam lu muy wax média bi lu ñu fi yóbbu tam mooy ah, euh, pencu maam Cheikh Ibrahima Fall mi ñuy mi ñuy def ah, muy émission boo xam ni góor yàlla dina ko def jigéen tam dina ko def yàlla dogal mu nekk émission boo xam ni du metti ngir la ngay laaj ci ña ngay invité ah, di nga ko xam ndax waxtaan boo yàggee dugg ci barab yu ko mel ni kër kilifa diine yi mhm. di toog seeni jotaay di góor di déglu di dégg di ko denc rawatina koo xam ne nag euh, da ngaa yaru kër Cheikh Abdoulaye Yaqin soxna Maguette Aydara yar ma di mag di taawu Cheikh Abdoulaye Al Yaqin di premier xalifaam kooku yar ma defe naa ne ku mu yar rek di nga mën a waxtaan. waaw daanaka luñ ci man rek foofu la jóge ndax wax ñuy dégg am luñ wax am luñ ciy denc. tubaarkàlla euh, mm. daanaka wéetal na mm. àdduna. Mm. waaye tamit wéetal na ceeskaay. Euh, nga nekkoon ku ko jege. daal loolu tey lan lan nga ci wax ci demuk Chérif jërëjëf xam naa ne loolu moom fun moo ko mas sax duma ci sawar di tontu ngir Chérif euh, dafa dafa dafa sori woon ci man lool ba léegi tam mu ngi ci man jugul ci man ndax tey jii su ma toogee programme di jàng sax euh, sama doom ji nga xam ne moo may aw su téye micro bi di aw du ko gis sërif rek laay gis ngir la muy wax euh, lu mu neex neex neex su ma ci gisul sërif du ma ko duma ko duma ko mën a yëg euh, sërif doon ko sori ci man nag euh, ba tey euh, mënul jug ci man daal waaw ni Serigne Saliou nekkee ci ñun daal ba mënul jug ci ñun ba fu ñu toll milieu bu ñu toog wala tante bu nu toog di ko way ah, day mel ni mu ngi mi ngi mi ngi jamono te jugu fi nag noonu la sërif di mel ci man waaw noonu lay mel ci man waaw tey bu ma la newoon tey nga fental mm. dara wala nga mm. soppe yi mm. lu xas yi day ak ci yëngu-yëngu bi ngay def euh, doon lay bàyyi rek nga daal di am loo xentu lu ndaw rek mm-hmm. baaxee ko gars yi def ko addiya man sax ma bokk ci addiya <laughs> ndeysaan waa mën naa nekk de ma wayal soppe yi soppi waa kër Xaadim Rasuul bëgg naa leen wóolu naa leen ku soppi seera faal jungal bëgg naa leen fonk naa leen ku soppi seera faal dugal yëngu lay lay waa kër xayrul anbiya bëgg naa leen wóolu naa leen ana yaay faal yee jug leen yëngu faal yee man de wóolu naa leen bëgg naa leen yéen soppe ku sopp yaay na koy jugal yàlla. ndeysaan loolu neex na. naa loolu. Euh, xam naa ni sama jigéen yee ma sori ku ci mel ni ñoom Marie. Ah, ku ci mel ne faatu buñ ma jege woon. <laughs> ndeysaan waaw gis nga. <laughs> wax dëgg yàlla euh, donc mu loo xamante ni. li ma wax nag xam naa comme fent loo nga ma. mais mhm. boo rek ma ma denc ko ndax lu muy aw lay doon. mais après ma woy ko rek. waaw loolu nag loo xam ne ñoo ko njëkk a ay loolu neex dëgg yàlla kuy génnee album euh, wala ngay woy ci yonent bi wala ngay woy ci lu mën a doon yaakaar naa ni comme ni ko olof di waxee rek loxoy kajoor day loxoy kajoor day weesoloo rek mm-hmm. waaw mm-hmm. euh, donc ndax séntu ndax am na xaalis liggéey bi ndax yeneen ci am dara waaw comme ni ma waxoon sànq rek bi nga ma laajee loo duggewul dara dara fekk la ci mm-hmm. euh, tey jàng mi ñu bari ñu ngi koy tuddee commerce waaye du commerce ndax liggéeyal yàlla la ndax baat mu neex buñ ko amee ak kum mënti doon rek baat bu neex boo ko amee te wayoo yonent bi salaay salaam ak njabootam euh, la nga way lu mu neex neex neex neex des na soo gisee waykat yi nga xam ne sunu mbokki waykat yi àdduna yi ku ci way rek di nga di nga way yonent bi wala nga way mu nekk loo xamante ni way sëriñ bi bénéfice bi du àddu waaw bénéfice bi du àdduna euh, suñ diggante ak sëriñ si euh, waaw dara nekku ci mooy ñun ñooy taalibe ñoom ñooy sang yi mhm. ñu digal ñu def ñu tere ñu bàyyi ndax euh, yenn saa dañuy gis sax sëriñ mhm. waykat bi fi mu li na mhm. problème wala dara ni loolu sax ni ko waxee rek ci dëkk boobu rek doy na ci ndax yo taalibe day jëfe ndigal waaye seen diggante waaw suñ diggante ak fan si. jànguloo jàng ñi aw ñi tëgg lu mu ñëpp toogee kenn yënguwul rek li may jàng lu mu neex neex neex du ma ko yëg waaw fa fans yi ma gis li feeñ seen kanam yi ma gis ne ci seen biir xol yi la jàng lu may yéex yéex bu ñu yëngoo rek dañ may di ma di ma di ma jox may ñoom nag ñoo leen raw fuuf ndax nag fu nekk mu neex rek fan si moo tax. li nga wax ci ñoom léegi dama ne mm-hmm. PSDA daal di koy protéger. <laughs> waaw ñoo ko moom waa Xéwal TV euh, ndaxte nag fii nga ko feddee. Mm-hmm. Xéwal TV man mm-hmm. xam soxna Nogaye. Euh, capable foo ko woo. si mën na jox. loo xamante ni nii fi mu toog la ko xalaat li nga fent ci fans yi noonu la euh, kon boog soxna Nogaye bu ko defee dañuy daal di rek bàyyi la nga tënk li mhm. nga xamanteni ni moy ci li nga nek moy liggey bi nga nek mhm. yeen saa ñakul e ne mës nga ci am mhm. lo xamni ni deug la mu sonal la waaw lo xamni metti won na la bis bobu euh, ndax mën nga ko koo wa waa mom euh, dina dina am ta ñak ci yoon wi ndax euh, li gëna met nak sax ci ci ci ñun moy nga and ak njabot nga xamni moy ñi lay ak ñi lay tëggal nit woo la programme nga dem ca luyo oto dem war a jàng ba pare war a fay oto bi war a yeewi ñi lay awul yeewi ñu lay tëggal nga dem def ko ba wàññeeku ñoo am joxuñu la xéewal goo leen jox te fekk na yow yoroo dara day métti dal na ma rek ci lu yàggul mënumaa tudd tur waaye loolu metti na ma euh, ba ni may métti ba léegi ngir ba tax na moo tax programme yu bari rek euh, su ma cay dem damay bëgg man ma yor xaalis ngir suñ ma joxulit man ma mën a génne sama sama sama jiba xel ñi may àndal ndax nag njàng mi neex na lool nag waaye ñi nga xam da ngay ànd ak ñoom ñu ànd ak seen bàyyi seen i waajur boo sañoon boo ñëwee jox leen loo xam ne bu ñu ko joxee seen waajur seen xol seet duñu ñaanal leen ngir mu mën a baax waaw lool daal mooy jafe-jafe mooy metti bi am na solo tey ji ne am na ci ay ndaw yoo xam ni ñu ci seen ron mm-hmm. euh, di jóg mm-hmm. ñoom it di jàng li ngeen di mm-hmm. jàng dugg leen ñu gis ne lii kat neex Mm-hmm. nañu topp ku mel ne soxna Nogoy mm-hmm. toppandoo ko ngir mën a àgg fi mu mm-hmm. euh, ñoom ñooy ni nag mooy ñu gën a góorgóorlu euh, yoon moom set la ak sellal ak jaabu yàlla euh, te liggéey bi ñuy liggéey muy jàng mi xasida yi wala tur yàlla wi jaamu yàlla la te jaamu yàlla mënul neex mukk mënul neex day métti loo ci mën a am tamit nag daanaka du fanaan ak yow waaw du fanaan ak kon jaamu yàlla la mu nekk loo xamante nii ñoom ñi nga xam ñooy door door liñ leen di digal mooy ñu ànd ak muñ ñu ànd muñ te am yar am teggin te fu mu fekk seen magum taalibe ñu war warmaal ko jox ko cër bi mu ko war a jox te njàng mi ni jàng ñu bañ a yàkkamte ndax buñ la joxee micro ba nga xas ba mën a war a wax rek mm. àdduna sëpp ni tekk di la déglu rek war ngaa xam ne ngay wax lan la. wallaahi wallaahi loolu moo tax ñu gën cee góorgóorlu euh, woon nga def nag euh, euh, sorti bu mujj. Mhm. muy clip bi nga mujjee def. Mhm. muy numéro 4. waaw bi ñëw doon doon bomb macha allah mhm. comme yeneen clip yi nga génnee ñaan yàlla mu xeeb doon. tey jii ni nga gisee clip bi ak rafet gi mu rafet. lan wax ci liggéey bi ña liggéey ak waaw loolu moom la. ngir sunu xol dafa sedd euh, ci liggéey bi ñu ko liggéey rafet na ndax woon nag euh, Sénégal gi ñu nekk ak bitim réew yëpp dina wax ne yaa na gis nañ clip bi rafet na def na même ay clip nag dëgg yàlla ak ñi xam naan def clip yi bëgguñoo tudd tur dégg nga daan seq ñoom ñu ay clip waaye clip yëpp doon na jaar yoon waaye bii tamit leer na ndax nag li ci am solo mooy clip bi euh, parole yi am na solo. waaye itam leeraay bi tamit euh, am na ci solo ak séquence yi nga xam ne moom la ñuy jël euh, am na solo mu nekk loo xam ne rafet lu nañ ko sunu xol seet nañ ci ñu leen ci sant bu baax ñu xam ne mbo mboolem ku ñuy seetaan nañu xam ne ñu ngi baat war a bàyyiwaat xel ci ni beneen clip ngi ñëw waaw beneen clip mi ngi ñëw ñu àndaat ko ak yéen euh, waaw mbaa xam ngeen ki ma tax a siiw te man ki ma tax a siiw mooy maam Cheikh Fall Lamp Babou Mouridine Daabé maam Seyna bu Ndiaye ma format daawu Yaasin mu ci jooju koddu faale Ndiaye coolu moom la kenn du si xibaar yëkkati loolu yëkkati loolu dafa am solo isigi faatil bende jeey dameel de ci fa ñuugu dameel de colo dameel sàmba faal Cheikh Ibra Faal yaa ñëg di seexu bande ñëg muridi ku ñëg di ñëg bi hakku yaa mamroo xamam la moo tax mm-hmm. man ma doon sawaay faal faw ci baatin lamp yaa may suturaal jojo ko du njaay Cheikh Ibra Faal jojo ko du njaay Cheikh Ibra Fall lamp babil murid ma farma dawru yaasin ci mbul sangu Cheikh Abdoulaye yaqinay bara e Cheikh Ibra Fall eh, e coow lu coow lu e waay Samba e waay Samba Sénégal déglu leen mbokki àdduna déglu leen xam ngeen ni lii dara fayu ko tarkàlla soxna Nogaye yàlla na sa jàmm yàgg ah, loo mën ren yàlla nga mën déwén lu ko lii am na solo xam nga way dafa neex mooy li nga wax léegi rek waaye woy balaa neex dëgg ngay tibbu nga xam li ne ci xolu nit ñi nga koy wax te noné ngay doxé donc fu mu toll ni dañu lay bayyi rek nga daal di tàggatoo ndax ah. waxtu wi xoj nañu bismillah wa kon jërëjëf rek di santat wa kër gi xéewal bu baax di leen joxat seen way di wax ni suñu xol sedd na bu baaxa baax di ziar kilifa kër gi ak mbolem ko xamni ni gëna don tu tank te fas don mak tank ñu leen jox seen way bu baax di rafet lu baax émission bi di sant sama yaay di ko gërëm soxna Abi di sant sama jur yëpp ak sama baay di sant sama borom kër di sant mboolem ku ni seetaan rek ak soppe yeeg ñëpp ak xarit yi ak am di jàmm yi leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni ngeen bàyyi xel émission bi ndax lu am solo la ay ca bisimilah jërëjëf jërëjëf soxna Noga yi ñu ngi lay jaajëfal yow tamit eh, ci oyof gi nga xam ni eh, oyof nga ko ba ñëw ndaxte nag bari na ci eh, ay ñoo xam ni comme ñii di def li ngay def Euh, tey bu ñu leen soxla woon euh, mën nañoo yëkkatiku mbaa ñu wan ñu neneen ne ñu amuñu jot wala ñu ngi ci répétition yi euh, tarka la nga wan ñu jikkoy yaay Fall wan ñu ni yow dara taxulaa jóg lu dul maam Cheikh Ibrahima Fall ah ñëw ak ak fekk si ñu fii def ak ñun émission vraiment mu doon lu neex nga def fi tamit loo xam ni tey képp ku ko seetaan dina bég ñu la ciy jaajëfal bu baax ci turu kër gi yëpp ci turu borom kër gi di wax ne rek mbokk yi mi ngi noonu émission ziar la woon Euh, ndeysaan nag euh, ki nga xam ni moom moo koy présenté muy sista Ndey Ndey Ja ah, nga xam ni tey jii xam naa ni ñàkkul ne jaaja la ñebe jee bari ci biir bi euh, rek ñu teewal ko fi rek di. sama soppe nag ndeysaan waaw. ndeysaan dëgg la ba tax na mbokk yëpp lañuy jël rek di leen nuyu bu baax di leen jaajëfal nag ci teewlu bi ah. papis nekkoon ci waxu bi ma invité woon ci soxna Nogoy mu kilaa la Mouhamed ci caméra bi di jaajëfal képp ku doon bàyyi xel di leen jox dig daje ci yeneen i émission